المكاره والأكبار جملتها لخير نهوي باغ جل سوق دمي ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسي المسهون بالنهام ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسي المسهون بالنهام بصرت خير الورى تبصيرا سيبقة صلى عليه مجيبا هذا للنهم هذا للنهم ساهدت في خدمة المختار طيب من لي يكسف الدهر ما سواي حني حنو حميم رفعت في خدمتي ربان يري عجبا من من, من فيد هاد يريني كل من بهيم ربيت في خدمتي ربا يري عجبا من فيد هاد يريني كل من بهيم واجهت عن حاجة من قال فيه صادق فتن ولا نبي على خيب بمتهم إن الرسول لسيف يستدعى به من ربه آسه الملوه والقلم بسم الله الرحمن الرحيم برأ عن الباخي من الأمراض وكف أنكر باهتراد برأ عن الباخي من الأمراض وكف من أنكر باهتراد لو سكوريا على حياتي abdan xadiman faasa bil ayaati askuruhu sukura lasina saribu min hasbihi walil jinaani xurribu wastu xayaatan laa turaa li xayri mujsatan baada li wasni xayri yajuudu lil jawaadu bil jiyaadi wasulu li yakuunu sanqiyaadi axyaani albaaqi bilaa imaata wala tanaasuhin wala samaata آتاني الباقي الكتاب الأحسما ولا ألاقي كل من تعصما هني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسال خالدا نفعني بالمصطفى المصطفى علي تسليمه نفع الأنفين داخل مية إلى سكور من سحر للخلق بقائي ساما ربي مالكي الخليل والحبيب وقد معاني داية Thank you.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 لكم jees nag mooy dañ ko daa junjoo rek jéem xam sëriñ bi te jéem koo dund jéem xam sëriñ bi te jéem koo dund sëriñ bi mën nu koo xam ci loolu nag am xas xas wajhi laa suñ lépp jëmale ko yàlla xas wajhi laa nag moom te am ci loolu dëddu adduna dëddu adduna bu ñu ko dee wax du ñàkk a lekk du ñàkk naan du ñàkk denc du ñàkk dëkk da du àdduna fam la mu li si gën a gàtt ma ngi da ngay jublu yàlla te dara àdduna du la saf bu loolu amee nga daal di nag eh, nekkal sëriñ bi yittewoo ko di jéem a xam aw doxinam mën noo sëriñ bi mën nu koo liggéey lu lu am xas wa la te def ko muy suñu yitte di ko di ko jàng di jàng doxinam di ko jéem a xam di jàng doxinam loolu sëriñ bi moom raw nam xel waaye nag lu ma tax xamle xamle na ko wane na aw doxinam itam lan da mën nañ caa xamee lan ca lañ ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi boromam nag moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam di woon jaam ñi nañ war a jaamoo suñ boroom suñ kem kàttan loolu kon loolu moo nu fi moo nu ci bàyyi moo nu ci war a bàyyi sëriñ bi boolewul ak dara boroomam ak yonent bi rek waaye borooma ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boroomam wane ci nañu war a nekkale nañu war a jaamee suñu boroom loolu nag dara da ci loon a jiitu xasu wajhillah jublu jublu suñu boroom jublu ko suñu lépp wan gannaaw lu dul moom ba du àdduna bi daal yi saf mu nekk ci nag nekk ci ni mu gën a sëriñ bi nekk ci nim lim fi lim nu fi bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo di lim nu fi bàyyi lim nu fi bàyyil suñ lépp ko suñu borom suñ lépp mu jëme ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci jaamu yàlla ci sunna Yonent bi sax dàkk ci jaamu yàlla joxe suñ lépp daray àdduna bañ noo saf loolu li ñuy indil du ñu taal dara lu suñ boroom ak àllaaxira ka nu jëm du ñu taal àdduna du ñu taal suñ bopp du ñu taal àdduna waaye nag nit li tax suñu boroom tànnal sëriñ bi mu nekk ci biir jaam ñi nekkal ko ci jëwoon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo nu ci bàyyi loolu rek moo nu ci bàyyi kon nu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax nan góorgóorlu ci nan góor bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko mën nan ko mën a liggéeyee ci li mu nu fi bàyyil muy sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag na ko suñu borom digle suñu kem kàttan na mu ko teree nu doo ko def suñu kem kàttan na suñu borom bëgg du ko bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu loolu moom rek lañ mën a liggéeyal sëriñ bi mën na ko mën a sant itam kon nañu góorgóorlu bu baax a baax da dara waru fi ne waru fee bàyyi loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam du duñu yàqal dara lan war a am ci àdduna ci ci yiw nu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rekk nag itam mooy tax nu mën a sëñ seen sëriñ bi mooy tax nu mën a sax ci liggéeyal ko kon nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mënu fi bàyyil man moom moo niy defar suñ lépp moo niy sàmm ci wàll yëpp biir ak bitti adduna bari nay pàkk lool waaye ku sax dakk bu nu saxee dakk ci li nga fi sëriñ bàyyil warat noo tiit dara dañ koy tënk rek ci nu sax dakk ci wéetal yàlla sax dàkk ci doyloo sëriñ bi diggam ak borom te nekk ci li mu nekk loo bu nu ko defee duñ waruñu tiit dara duñ jaaxle ci dara duñ ragal dara te dara du man ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo nañu góorgóorlu bu baax ci nekk li sëñ nekk ci nekk sëñ nekk ci li sëñ bi bëgg ci noonu nekk ci li mu nekk loo te wéetal wéetal suñu gën a wéet waxtu wu ne ci biir bitim yi gën di wéetal suñu borom ci lépp di gën di doyloo sëriñ bi itam nag di gëm borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne buñ ci buñ ci buñ ci góorgóorlu luñ ci gën a góor góorgóorlu rek gën a yëg suñu bopp ci gën a moom suñu bopp ci tënki-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna luñ luñ ci gën a nekk rek di gën a moom suñu bopp ci ci wàllu googu tënk-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna te bari na lool waaye loolu rek moo ji ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li muy indil mooy taxi àdduna ak taxi àllaaxira rek muccu àdduna muccu àllaaxira defaru àdduna defaru àllaaxira loolu rek la moo moo ci moo ñu ci dikkal kon noo ngi sant ñëpp di baalu ak ñëpp dénkaane ñun ñëpp nu balonte àq bu xas wajhi laay amee jubbu yàlla bu ame dootoo tal dara loolu yàlla ak alaaxira ku tëlul ku tëlul ku tëlul dara nag loolu yàlla ak alaaxira sa lépp ak yiw la ndax dootoo xëccoo dootoo xëccoo ci dara adduna dootoo jëmee ci sama romam jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jafe ga loolu doon rek la demee man góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wéetal yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy ci suñ lépp nag suñ si yiw adduna suñ yiw adduna ak si yiw alax yiw alax lépp ngi ci loolu kon jërë ngeen jëf góor góor bu baax a baax a baax te gannaaw ba nu santee goo xam ne yëmul fenn ndax ban nu suñ borom bi rek booba la ajo mel na ni suñ aj booba la ajo fajo ndax sëñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àllaaxira nit dafa mënut a ñàkk nekk nekk ci dara kon nu nekk ci jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ndax noonu la bëgg ci noonu bu ko defee rek suñu lépp yéwén jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay yéen weesu ñoo sant bu baax a baax a baax a baax taxawaay yi mat na rafet na jub na loolu lépp tawfeex ju ñu am rek moo nu ko may muy tawfeex sëriñ bi sëriñ bi tawfeexi boroomam la kon tawfeexam mu ni wamma ci lépp loolu kon sant yàlla rek moonu war ak nag jéem ma nekk ci loo xam ne ci leen ko mën a sante ci leen ko mën a liggéeyale jërë ngeen jëf na bi ñaan góorgóorlu bu baax nag baax ci muuri koor yi ndax yitte juréy la ñu koor gi kon nan ci góorgóorlu bu baax a baax suñu kem kattan